dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox te wóor abonné leen dara bañ leen a raw. AGT news. dal leen ak jàmm mbokki internet yu AGT news. Ousmane Sonko président bu Pastef daal dinay def ab publication ci page Facebook am di naqarlu li nga xam ne jamono ji ñëpp moom la ñuy waxtaanee muy ñetti téeméeri ndaw yi nga xam ne dañoo réer ci géej gi te kenn xamul ba tey fan la ñu daal di nekk dañu leen di jàngatal kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati leen fàtte abonné waaye itam ngeen aimé vidéo bi Ousmane Sonko mu ne environ 300 jeunes auraient disparu dans les méandres de l'Atlantique une fois de plus enquête d'un ailleurs hypothétiquement meilleur mu ne nag amati na ay yu ñàkk seen bakken ci géej gi te dara waralu ko lu dul am yaakaar que ni bu ñu demee feneen dañ mën a defar seen adduna moo waral ñu dugg ci bilép aventure daldi ci teg ne douze longues années plus tard le même phénomène macabre et désolant continue de décimer nos jeunes et d'endeuiller durement les familles Ousmane Sonko mu ne fukki at ak ñaar ci ginnaaw ñëpp yaakaaroon nañ ne mbir mu ni mel dina jeex waaye boobu ba tey ndaw ñaa ngi ñàkk seen bakken ci géej gi yi jural ay dëj yu méttee métti famille ya nga xam ni fa la ñu daal di bàyyeekoo mu teg ci ne ces drames à répétition traduisent l'échec des politiques publiques du régime du président Macky Sall ces erreurs de priorité faites de gros investissements infrastructurels sans impact majeur ni sur l'économie réelle agriculture pêche élevage commerce ni sur le tissu social au prix d'un lourd endettement mu ne nag politique bi nga xam ne président Macky Sall moom la jël moo baaxul moo waral yii ñu koy daal di gis muy def ay investissement yu bëree bëri jëmale ko ci wàllum tabax te loolee yëpp kenn santiiru ko ci lu ñeel wàllum mbay mi napp gi sàmm gi ak itam jënd ak njaay mi te loolu yëpp nag dafa tegu ci ay bor yoo xam ne Sénégal moom moo ko nar a fay moo waral métit yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci réewum Sénégal ba tax mu ne ab échec bu mag a mag la Ousmane Sonko daal di ciy teg ne chômage et paupérisation notamment sont des fléaux ñàkktee ak ndool gu dul jeex moom mooy bés bu yàlla sàkk li nga xam ne moom la ñuy daal di dund ak itam ñàkkum xëy il reflète également l'instabilité politique dans laquelle ce régime aura plongé ce pays avec son lot de violence d'État de torture et d'emprisonnement politique mu ne nag lii day ware dong ne Sénégal jamono ji dalul ci lu ñeel wàllum politique waaye itam day wane ne violence bi nga xam ne état bi mi ngi koy def saa su nekk ak torture yi lii mooy nekk bés bu yàlla sàkk ay conséquences am ba tax mu daal di ciy teg circonstances augurent enfin des lendemains incontrôlables, aussi bien en termes de stabilité intérieure, d'explosion du flux migratoire si le président Macky Sall persiste dans sa volonté suicidaire de sélectionner ses candidats à sa succession à la tête du Sénégal, puis d'imposer la personne de son choix au peuple par un scrutin biaisé. moom Ousmane Sonko mu ne lii nga xam ne nag dara waralu ko lu dul doxalinum président Macky Sall bu continuer ndaw ñi dinañ gën a jël gaal yi ndax lenn kese moom mooy ay mbiram mooy fexe ba xool ñi muy tànn ngeen ñu dem élection waaye itam bëgg ñoo imposer kenn koo xam ni moo koy daal di wuutu gannaaw bu mu fi jugee ndax moom Ousmane Sonko mu ne. ci tànk yi daal di jël élection yi di ñëw doxalee ko nam ko bëggee le président Macky Sall daal di nekk. tax na Ousmane Sonko di interpeller ndaw ñi mu ne aux jeunes de mon pays yi réitère moo appel vous ne pouvez avoir meilleur avenir qu'ici chez nous moom Ousmane Sonko mu ne ndaw ñi maa ngi leen di woowaat ci ngeen xam ni réewum Sénégal gi mën ngeen ko fee am te feneen fu ngeen bëgg a dem itam amee ko fii moo ko daal di gën mu teg ci ne ne fuyez pas votre destin reste et menons ensemble le seul combat qui vaille la construction souveraine de notre développement économique et social mu ne yéen ndaw ñi bu leen daw benn yoon toog leen fii ci suñu am réew ñu ànd booloo takkatoo dal di xeex ngir réewum Sénégal ñu yóbbu ko fa nga xam ni réew yi développé tey yëpp fa la ñu daal di àgg daal di ci teg ne ceci très largement à mën naa nekk am nañ lépp loo xam ni mën naa tax ñu daal yegg ci niveau de développement boobu muy lu ñeel wàllum ressources humaines ak ressources naturelles boo déggee ressources humaines mooy ay ndaw ak actif yoo xam ni mën nañ koo daal di liggéey ressource naturelle mooy suñu ay suuf am na lépp loo xam ni xeetu richesse la ngir am réew daal di mën a développer ci mbay ci napp ci sàmm jënd ak jaay waaye itam lépp loo xam ne dafa ñeel pétrole gaz zircon phosphate ak bépp xeetu richesse boo xam ne rek Sénégal daal dina koy am daal di jeexalee ne mes prières accompagnent les personnes disparues afin qu'elles soient retrouvées saines et sauves mi ngi ñaanal ñi nga xam ne kenn gisu leen jamono jii ngir ñu daal di leen tegaat gët ñu delluwaat seen ay njaboot ci témoigne à toutes les familles affectées par cette tragédie ma profonde solidarité dans cette épreuve qu'elles vivent sans doute avec une profonde inquiétude mais également avec dignité et foi moom Ousmane Sonko mu ne mi ngi daal di naqarlu bu baax a baax li xew waaye itam di àndandoo ak njabooti ñi nga xam ne ñoom ñoo réer ci géej gi te xam na ne ñi ngi koy dund ak ngor ak ngëm métti na lool waaye ma ngi leen di ñaanal bu baax a baax lii mooy kàddu yi nga xam ni Ousmane Sonko publier na ko ci page Facebook am jagleel ko ñetti téeméeri ndaw yi nga xam ni dañoo réer ci géej gi jóge woon Sénégal ngir uti ji lu ñu mën a amal seen bopp defar seen avenir ba tey jile mu jural leen bi lépp jéya bu leen fàtte aimer vidéo bi waaye itam ngeen bone AGT News